Rasiat di kuréel gi nga xam ne moo tënk ñi yëngu ci wàllum gerte ak diwlin ci diggante Touba ak Mbàkke sol dàllam dem siyaar yi Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides jébbal ko li nga xam ne moom la joto waajal ngir jëmale ko ci màggalu Sëriñ Touba soxna maam Xari Mbàkke Ousmane Jaxate ak ñi nu àndal wax ne ñoom daal am nañu mbégte lool waaye it ñu ngi sant président Macky Sall ndaxte gis nañu ne am na positif lool jëmale ko ci secteur bi nga xam ne amoon na ay gàllankoor yi nga xam ne ñi ngi dégg fan yi président Macky Sall di ko def ci secteuru euh, gerte gi muy appel yi nga xam ne def na ko ci tournée économique bu Kaolack defaat na ko démb moo ci mujj ci conseil des ministres wax ne mi ngi woo ministre du commerce ministre euh, euh, de du finance ak ministre de l' ngir ñu jàppale industriel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi muy huilier yi ba nga xam ne ren campagne arachidière bi ñuy séentu muy campagne bu mucc ayib bu gerte gi ñoree daañu ko mën a nal ci biir réew mi ah, euh, def ko dëwlin raffiné ko jaay ko euh, sénégalais yi loolu nag ñu ci am mbégte bu baax di ci am yaakaar euh, di tàmbalee gis ne que président promesse yi nga xam ne diggé woon na ko bi muy def campagne 2019 promesse yooyu mi ñu ngi commencé di gis résultat yi ndax xam nañu ne réew mi doomi réew mi dañu soxla liggéey te li mën a créer emploi ci réew mooy industrie yu dox

Euh, rawatina nak fi nga xamne moy Touba Touba ku nek xamne na principal activité bi duñ dañ di wax moy gerte te ndaw yi nek Touba dañu wara liggéey euh, kon vraiment ñi ngi euh, sant yalla di ñaan ci barké magalu Touba gi suñ borom dimbali ñu ba ñu mëna liggéey ren ndax daaw ku nek xamne na liggéeyu ñu won dañuy sant aussi président ci effort yi nga xamante ne def nako ci mbay mi ñepp gis na ni ci campagne bi jël na luma 62 milliards def ko ci agriculture. loolu dafa nekk montant bu am solo tax na béykat yi am nañ jiwu boo xamante ne nii doy na am nañ ay intrants yoo xamante ne nii doy na te mucc na yëpp waaye nag bu ñu sañoon ah bu nu jëlee xaalis bu tool noonu def ko ci mbay ñu am luñ ci compal ñi nga xamante ni ñooy transformateurs yi ndax mbay mi niñ koy waxee ci plan Sénégal émergent dañ ni chaîne de valeur chaîne de valeur maanaam mbay transformé dunde kon bu ñu jëlee xaalis bu toll def ko ci mbay mi ñun ñu ngi doon xaar wax dëgg fa yàlla ñu jël ci benn somme bu doon 10 pour cent la sax def ko ci transformation artisanale ak transformation semi industrielle comme ni ko PSA waxee waaye nag suñu yaakaar tasut ndax DER bi mi ngi fi te ñëpp gis neen DER bi bi euh, campagne anacarde bi taxawee ñu dem Casamance daal ni dinañ jàppale producteurs yi ak ñiy yëngatu ci anacarde bi. donc ñi ngi xaar ñun tamit suñu suñu suñu wàll ci loolu. yaakaar ju yaatu terewul Rasiat bamtu jafe-jafe yi nga xam ne ci la ñu jógee soxna maam Xari Mbàkke di leeral ne am na usines yu nga xam ne jot nañu jànkonteel ay gàllankoor yu tar. daaw moom mun nañu wax ne daanaka liggéeyuñ usines yi daanaka liggéeyuñ mun nañu wax ne suñu chiffre d'affaires 10 pour cent sax liggéeyuñu ko ci ndax dañu exporté woon gerte gi te exportation boobu nag. du du du du jàppale euh, du jàppale euh, secteur euh, industriel yu réew mi du jàppale itam doomi réew parce que matière première comme niñ koy mas di waxee kenn waru ko exporter dañ ko war a bàyyi ci réew mi bu ko defee ndaw yi mën ci liggéey ñu exporter produit fini créer ay emploi mu ànd ak ay kilifa yu bëree bëri bokk ci kuréel gi bokk ci ñooñee ku mel ni Ousmane jaxate moom mi nga xam ni mooy secrétaire général Raziat soxna Mame Khary Mbacké di bamtu ne am na yaakaar ju rëy lool jëmale ko ci ministre de l'agriculture. actuellement ñi ngi déglu le ministre du commerce et le ministre de l'agriculture que ñu woo ñu ñu démarrer waxtaan yooyu parce que ku nekk xam na ne campagne bi fii ak un mois ak campagne arachidière bi dina démarrer donc ñu ngi leen di déglu jàpp nañ li nga xam ne président wax na ko ñoom dinañ ko suivre. ba ñu mën demari démarrer campagne bi huiliers yi am gerte liggéey euh, te que loolu bu buñ ko bëggee il faut que bu campagne bi ubbee ñu mën a tëj les exportations pendant trois mois huiliers yi mën a jënd gerte gi doomu ndaw yi doomu réew mi liggéey ñun loolu la ñu mës di xeex loolu la ñuy wax moom la ñuy continuer di ko wax réew mi fii mu toll xale yi dañu soxla liggéey rawatina nag ndawi Touba ak Mbacké dañu soxla liggéey te ñoo ñu pour ñu liggéey il faut que matière yi ñu koy bàyyi ci réew mi nit ñi di ci mën di liggéey